Euh, euh, la xadd jaakum bu ngeen ko jotee ci oto ngeen yëkkati seen loxo ndigalu seen pap alfasi la man abdoo ko wax nga yëkkati seen loxo te bu ko teg sa bopp te jàng la xadd jaakum benn yoon waaw amit yoon suñu papa tam wax nañu ne ku dugg ci oto na nga jàng la xadd jaakum ñetti yoon booy toog tamit nga bind waaw fi ngay toog accident bi ci am dangay bind waaw toog bu ngeen xasee ba oto bi tamit balaa kenn di ngeen di sori na ngeen séddoo trois cent quatorze Quraysh ak ayatul kursi trois cent quatorze ngeen séddoo waaw bu ngeen defee da bindee waaw toog daal jàng la xam jaatu benn yoon fiil sa bopp defaat ngeen séddoo seen bopp allah wa haadal wa iyaadal waaw yàlla na leen اللهم إننا في حماك وتحفظ لنا بحماك وانصر وانصر علينا لواتك واصرف عنا البلاء الخارج من الأرض ونازل من السماء فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الذي فرض عليك القرآن لرآبك إلى معاده بجاه محمد خير البرايا وقتل الأولياء المثال رضي الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربنا كريم.